bi mu ne ànd ak doom ci oto bi ndeysaan macha allah c'est le Sénégal ci oto bi ak doom ji ndeysaan macha allah lii mooy Sénégal lii mbégte la fii ci Médina macha allah mbégte la mbégte la mu ngi fi mu ngi naan ak doom ji mu ngi xam ne rek tey lu ngeen bëgg ak des produits rek dañu ko am à ak gànnaaw muy def caravane an tey macha mu ngi noonu doomu ndey gànna mu ngi noonu ndeysaan moo gànna ñu ngi noonu ci oto sama gaan nga yow ñoo far macha seen Sénégal gànna kay bëgg nañ la macha allah mu ngi noonu mais sama copain macha allah kenn du moom sécurité 100 pour cent sécurité tout le temps macha allah bépp événement mag fa moo ko moomee macha allah sama copain macha allah. waaw ñëw leen ñëw leen ñëw leen gànna kay mu ngi noonu ak doom bi mu ngi noonu Gana Gueye def caravane mu ngi noonu def caravane mu ngi noonu ndeysaan mu ngi reetaan dafa bëgg c'est le Sénégal voilà mu ngi noonu waa arrêté mu ngi noonu ndeysaan rek ndeysaan lii rëy na rek sasaanoo fi la dafa mu ñëw fi def caravane bi kon yaakaar naa du fàtte démb macha leen soxna national bi Gana Gueye arrêté leen ko arrêté leen ko comme arrêté leen ko. defal defal amoo def ba léegi rek mu ngi noonu. ndeysaan macha allah ñu ngi noonu. gànna mu ngi noonu. ànd ak sécurité bu doy sëkk. kay ne ànd ak sécurité bu doy sëkk.

May leen may leen may leen may leen may leen gannaaw yi noonu mu ngi noonu madame a ngi nii joto bi madame Gueye eh booy arrêté lan dañuy liggéey madame Gueye noonu joto bi macha allah mu ngi noonu ak doom ji madame Gueye noonu joto bi madame Gueye noonu ak atam yi mu ngi noonu ndeysaan lii rafet na doom jaay noonu madame Gueye noonu joto bi ah Fodji Gana ngi noonu Fodji Gana Gueye ngi noonu ndeysaan madame a ngi nii madame Gueye madame Gueye ngi noonu aujourd'hui c'est la fête pour Gana Gueye madame autour de la fête Waguéne au Sénégal tu es content maintenant muy noonu ndeysaan xam ne mooy waa koñ bi ñu ngi sama nga ne mooy njëriñu fi la yaroo mu ngi noonu mu ngi noonu ndeysaan gànnaaw ngi noonu ndeysaan macha allah waa koñ bi oho lii rafet na lii rafet na gànnaaw ngi noonu sabati waa koñ bi te yaakaar naa Medina foo sànni màcc mu teg Medina foo mu teg lii ma muy noonu ndeysaan saa kontek dama ah lii riis na lii na da ngeen di demee côté borom ja mu ngi dugg ci jàkka ji ay waay gànna day waay ay waay gànna day waay mu ngi dugg ci jàkka ji waay lii na oh gànna day fekk woon fàtte woon démb mu ngi dugg ci jàkka ji ci jàkka ji lay dugg xool imam ginnaaw ba mu duggee ci chef quartier pare mu dugg ci jàkka ji Gana Gueye tax mu ngi noonu féetu ko ah téye baax na téye baax na kala bi rek jël xoolal voilà boloke ngi noonu lan tax national mu ngi noonu ci imam bi mu ngi noonu di wax imam mu ngi ne imam bi ndeysaan muy nekk imam bi lii ñoo ci kanam caméra ñoo ci kanam mu ngi leen di wax imam bi bàyyi ko mu jël tuuti rek waaw mu ngi wax imam bi mu ngi noonu ñoo ci kanam garaan nga mën a jël ñoo ñoo ñoo ñoo mu ngi noonu ñoo lii garaan nga mën a jël mu ngi dénteeg imam bi Gana def nga lu riche Gana def nga lu rëy Gana fàtte woon démb yaa julite fàtte woon démb dara mënu la ko Gana Gueye ñu journaliste li ñu wax dañ ko luñ gis dañ koy wax buñ gisee ne ne na ngi Gana Gueye international nga xam ne moo fi andi coupe bi pot bi ñuy soxla ay 30 ans mënuñu ko am yaa ko andi ak say nawle yaa ko ak say xarit Gana Gueye l'international bi Gana Gueye l'international bi am Diop Joxal Ndiaye bu bi ngay def